ba tey dégguñu guy gi promoteur yi ñu lay contact grand contre bi ci nekk yàggatul grand contre petit maa ngi dégg ñaan Gris Bordeaux maa ngi dégg ñaan yi laa gën a soxla ci bi Ama Baldé am na fu jëm Boy Niang am na fu jëm te dafa naa Eumeu amul beneen espoir boo ko jox man ko dafa naa loolu mooy grand contre bi ñu ngi liggéey suñu entraînement dans quelques instants ñu dem États-Unis waajal pour ñëw pour waa man du ay sax parce que man nu ma neex toll nu ma bëgg a neex toll lu ma bëgg a neex def ci nit doomu aadama yi léegi la rek mais kenn ko xam ne guy gi booy bëreeg moom bu tëddee doo nelaw mais léegi bi ma ñëwee toppandoo gars yi jël yenn poids topp lekk gu neex yi soxna si repas yooyu yaa ma gën a xam. toll nii ñu promoteurs yi ñu ngi lay contacter sa diggante bu baax bu baax sax. bu baax dañoo jubagul mais bu baax dina baax bu soobee yàlla. kon jàpp nañ ni guy gi ren dina tawel xataa. bu neexee suñu borom incha allah. ah guy gi. kontaan naa Wassare Lamb dañ laa bëgg a seet si. maa ngi kër ga amul problème bu ngeen ñëwee bu ngeen sonné rek man bu ma téyeluma kenn sama porte maa ngi fa. ok sëñ Basirou li guy gi wax. jeex na